للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخراوين أحمد لا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu. noo ngi leen di ndokkeel. noo ngi leen di ñaanal. ci weeru tedd wi nga xam ni moom la ñu génne. yal na yàlla nangul nu sunuy jaamu yépp nangul nu sunuy koor nangul nu sunuy naafila ci barke Sëriñ Tuubaa noo ngi leen ci ndokkeel bu baax di ñaan yàlla nu fekkewaat ko ndëgë ni déwén te mu ànd akuk dal akuk tal loolu yomb na yàlla di yëkkati kàddu rek yoo xam ne baaxoo nañ ko yëkkati ci bu bis bu mel nii bis bu mel nii bu amee kàddu yi kàddu yi yeete rek lay doon kàddu yu soññee rek lay doon ci li ñu fi indi te bàyyi nu fi te mooy diine lislaam ginnaaw dañoo waroon di daje bis bu set di ko waxtaane wala weer wu ne ñu di ko waxtaane bu munta am kon war na at mu ne ñu di ko waxtaane ba kenn ku nekk yóbbuloo ci loo xam ne su sa xel demee sa xel delluwaat gannaaw yokkaat sa góorlu xam ngeen ne nag jamono bii nu toll jamono bu metti la bu doy waar la nu di ci sargal imaam ak imaam yi yépp ci seen taxawaay yi mettik jamono taxu leen a dellu gannaaw taxu leen a yox yow yox yoxi taxu leen a bàyyi lañ jàppoon kon nong leen ci sargal bu baax te di leen ñaanal yalla yalla kàttan na leen te dëgëral leen di siare tey sargal tey ñaan tey dokkel cheikh mohamadul muntaha yalla yalla dëgëral ko te kàttanal ko kilifa ngi nonu gu mat kilifa gu doy yaakar gu dal xel go xamni gi kep go xamni ne mooy kilifa te nga te sa digganteeg mom sa nag sa àllaaxira lepp ay jakk mate na ko ci wàll yëpp yàlla na ko yàlla bàyyil te dëgëral ko te kàttanal ko ba li bëgg a liggéeyal lislaam bëgg koo liggéeyal yoonu murit bëgg koo liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla defal ko ndimbal ba mu àggale ko na mu ko bëggee ba naal yeneen naal ci barkeb sëñ Tuubaa yàlla man na ko yàlla na ko def di sargal bu baax boroom xam-xam yi ndax metti jamono taxu leen bàyyi taxu leen dellu gannaaw tàmbalee ko ci al muxaddamatul xidma bi nekk ci jumaa ji taxawaay yi rafet na lool yëg nañ ko wante al wafa bi nekk daaru Muxti taxu leen naqari jamono taxu leen deltu gannaaw al minanu euh, al académie minan bi nekk euh, daaru minan bu sëñ Muntaxa seen taxawaay gis nañ ko julli yépp yëg nañ ko kon nañu xam ne forotul ayni bu kër sëñ Suhaybu wala yëg nañ leen bu baax daaru salaam yëg nañ leen bu baax mboolem jàkka yi gédee fu fi waay nekk te doon yëngu yëg nañ yëngu bi bu baax tax na suñ xel dal bu baax xam nañ ne naqar ak jamono ak i jafe-jafe ak i tar-tar du tax mukk ngeen bàyyi seen waxee yàlla na yàlla kàttan nañ leen ñëpp yëg nañ leen sant nañ bu baax a baax bokk jullit yi dañ daan wax ne bada al islaamu xariban wa sa yahudu xariban fa tuuba lil quraba dañ doon wax ne de lislaam bi bi muy ñëw ku tumaranke la bada al islaamu xariban fa sa yahudu xariban fa tuuba lil xuraba lislaam de mi ngi tàmbale woon ci tumaranke nee nag dana delluwaat ci tumaranke waaye bu boobaa nag ñi nar a texe ñooy ñi ànd ak ñi ànd ak lislaam ci tumarankeem googee waxtu wu nekk nag ñi ngi doon wax waaye defe naa tey jii nag la gën a dëggu nag tey jii xam nañ ne l'islam moom tumuranke la bu wóor tumuranke boo xam ne kii kilifa yu mel ne si mun taxaa ñu mel noonu dong ñooy ànd ak islam bi tumuranke yi bi tumuranke yi ci barke say ah adduna bi de yëg ngeen ne soppi ko na bu wóor te li ko soppi nag mooy yàlla dafa wax ne صار الفساد في البر والبحر بما عملت أيدي الناس ولنسيقهم بعد التي عملوا لعلهم يرجعون dafa wax ne yàqu gi ne feeñ na ci jéer yi feeñ na ci géej gi waaye bu ci kenn tuumaal yàlla nag nañ xam ne bi maa amee la ay dinaas nit ñi seen bopp ñoo ko defal seen bopp wala lu siqannahum wala lu siqom bari la si amilu laxalam yarjihoon yàlla nee na ma mosal leen tuuti nag ci li ngeen def lu ma cee jublu mu ngir ngeen ngeen delluwaat xam ne fi ngeen teg seen tànk du foofu waaw xam ne fi ngeen teg seen tànk du foofu loolu na jublu kon nag tey yàlla wan nanu ko wan gu leer nañ ñi sëñ Saliou Mbacke yàlla yàlla yokkay leer dafa dafa waxoon ne ku ragalul yàlla de yàlla bind na loo ragal moom ku ragalul yàlla yàlla bind na loo ragal tey nag ñëpp xam na ni yàlla bind na lu ragal lu ñuy wax coronavirus jàpp feebar boo xam ne bët mënu koo gis seetukaay yu xereñ yi képp sax ñoo ko mën a gis ndax tuutiwaay ba yàlla bind ci benn tasaare ko ci àdduna ji ba tey kenn talatul dara ngir kooku kon xam nga ne kooku de soo koy tooñ ci ñàkk jom nga ko teg waaye xam nga ne ki mën a bind lu tuuti loolu mu daj àdduna lakkal àdduna witt kenn mënu ci dara kooku de war nañ koo bàyyi xel bu baax kooku nag dara waralu ko lu may su sunu melakaan wa ma asaabakum min hasanatin fa min allahi waaye nag wa ma asaabakum min sayyi'atin fa min nafsika lu baax de loo ci am yàlla la ko jox waaye safaan nag loo ci am yaa ko defal sa bopp yàlla amul safaan lislaam de saa ko ko le yàlla moo koy fayul saa buñ ko tumuraankeelee yàlla moo koy fayul te loolu nag feeñ na loolu feeñ na bu baax ndax feebar bii de bi muy laataa ñëw ñu bari séentu woon nañ ne dana am luy xew bi bi mbir xew bi mbir mi laataa xew ñu bari gisoon nañ ci ndax siin nga mu jóge siin nga xam ne fa la ma jóge xam ngeen ne diire ab diire ñu noonu boo xam ne lu mat nangami million ci ay jullit ñoom lañ dajale ne dañuy laawee seen yuur gi ndax lislaam gi ñu jëm lislaam bi waruñ koo gëm baaxut dañ leen ciy génne di leen def lu bon di leen bu ndoxataal àdduna bépp wax àdduna bépp wax mënu leen leen dara foofee la virus bi tàmbalee waaye ba virus ba tàmbalee foofa kat bu leen jàpp ne bu leen jàpp ne ci ñoom la yem ndax yàlla du yàlla du fayee noonu mbir yàlla du fayee noonu mbir wattaqu fitnatan la tusibanna alladina salamu minkum xaassa yàlla nee na ngeen di wattoo taal fitna ndax fitna saa boo ko taalee du yem ci yow mi ko taal musiba du yem ci bopp borom noonu la ko wolof di waxee loolu nag mooy la ca xew bañ taalee musiba bi ñoom yàlla def leen a alak waaye jullit yi nag ñoom itam taxawaay bañ war taxaw ci taxawuñ ko ñoom it yàlla daf leen di nattu musiba bu ñëwee bu dalee ci ku gëmut yàlla alkande la bu dalee ci ab jullit nag nattu la waaye ñëpp a jot seen wàll nag su ma la ko bëggoon a misaal dama lay misaal ni soo faboon lu niin diw ko sa tànk tàngaleeg yi sam ko benn tàngaleeg moo la cay matt waaye boo dóoree téeméer ngay rey yàlla noonu lay fayoo yow mi defe ne bokkoo ci sax ci nga bokk moo tax itam gis ngeen ko alag na leen réew tubaab yépp alku nañ tey alku nañ tàmbaleel ca Amérique tàmbaleel ci Siin gam daloon tàmbaleel ci Italie Espagne réew yu mag yi nga xamoon yépp yi nga xam defoon nañ ne weesu nañ fii ñoom la yàlla njëkk a toroxal àllag leen ci microbe bi ñuy wax coronavirus door a ñëw ñëw ci réew yu jullit yi Arabie Saoudite nag foo xam foo xam virus ba dem na fa def fa musiba moo xam ne mu rëy la ba ak suñ réew yi ñu war cee jànge lu bari nag yéefar yi war nañ cee jànge jullit yi war nañ cee jànge wante sunu Sénégal gii nag war nañ cee jàngee bu baax ndax coronavirus bi dugg na si de waaye bu fi duggee tam am nay njàngat yu ci mën a jàngate jàngat yi mooy bi mu dikkee de xam nañ ne jullit yi ànduñ luñ benn wane nañ ko seen doxin wane nañ ko seen waxin wane nañ ko seen jëflante te feebar bi moo ko moo ko feeñal wante euh, gouvernement bi nga xam ne moo fi nekk it war na cee am lu ci jàngee lim ci jàngee mooy yëg ne doomu aadama yi gëmuñ ko te wóoluwuñ ko kon war nañ ko ci jànge bu baax war nañ cee jànge ne politiciens yii fi nekk nit lañ yoo xam ne yi nekkaluñ fi kenn seen bopp lañ fi nekkal ndax ba mbir mi xewee ba léegi kenn ku nekk la nga yor yaa ngi yoone kat yi jéemoo wax sax luy luy tax nit ñi am jàmm war nañ cee jàng itam ne sunu daara yi nga xam ne ci lañ bëgg a përëfitoo pour tëj ko yàqal julli yi seen diine te julli yi ne ci cell ñoom itam jéemuñ ci dara waxuñ ci dara kon daanaka tomb yooyu rek lay doon tubaab yi de yàlla toroxal na leen yaa ngi tàmbalee ci amérique ñu bari dañoo yaakaaroon ne amérique moom kàttanam àgg na ci fi ne maanaam bu ko neexoon mu daal di réglé àdduna bu ko neexee mu tas àdduna léegi wante ci feebar bii yàlla wane na ci ak ñàkk kàttanam ak néew dooleem ak ñàkk xam-xamam ak ñàkk man-manam ndax ñi néew doole sax liñ ci man a kës néew moom yàlla dogal na far mënu yàllaa ko jubloon ci weer ko waaye mënut woon a ñàkk noonu la def Chine noonu la def Italie noonu la def Espagne noonu la def Angleterre mboolem réew yu mag yépp noonu leen def leen ko teg nag mooy yàlla moom saa boo xamee ne moom ngay xeex suba goo xëyee rek sang dong daa tax suuf yàlla moom yàkkamtiwut kon ñoom yàlla wan na leen lim leen di wan xam nañ ne mënuñu tële nañ ci feeñal nañ ko ci kanam àddina ak France ak ñëpp jullit yi yàlla wan na leen ne seen seenug yaafus ak seenug deltu gannaaw ak seenu mbon sax laa koy waxe ndax suñ toogee bay tëj kaaba ga ngir ab biris te alal ji war a tax ñu fegu ko nekk fa seen loxo ñu di ko seetaan jéemuñ ko aar jéemuñoo aar jullit yi lu may dara du seen métier lu may woo Amérique woo Israël moom Arabie Saoudite ngir ñu aar ko ci diggam ak Iran te Iran di mbokkum jullitam sa mbokkum jullit ngay wooyi say noon noon yee ñoo lay aar sa diggante ak sa mbokkum jullit ñi dala fayu ay milliards yu dul jeex coronavirus bi ñew dugg ci biir réew ma mëno financer xaaliss ba ba ba julli yi mel lañ war def li waron def tay ji ña nga ne tej kaaba ga umra kenn defu ko tey yàlla xam ndax danañ aj makam ndéet kon de lislaam ranké na fofé nga xamné moy mooy ballukaay yu lislaam ndegam kaaba ga lañ tej kenn ku nekk fa nga nekk boy ba nga bayyi sa xel ta xamné ne bi ñek bi la jëm boy wañu ñu ko xel bu baaxa baax motaxit yàlla toroxal na leen ndax weeru koor wi nga gis biig rek ci lii bi ñi ngi bombardé jullit yi di leen rey ñuy mel ni ay weñ ci kaw ci ci ci ci mbedd mi biig weer yu feeñ ñu war a fa ñu war a fay war a xëy feetu feetu korité boo demee yaman looloo fa xew boo demee diggante Iran Amérique dégg nga ko boo demee Syrie looloo fa xew ñëpp xeex xuloo rek mooy seen métier waaye jéemu ñoo défendre l'islam jéemuñ ci dara moo taxit yàlla andi na fitna joo xam ne bii kenn xamul fu muy tàggoog moom kon l'islam tumuranke na wante boo demee France loola fa xew ñëpp la jaaxal wante nag bi ñëwee suñu mii nag daa ànd ak yooyu yépp ba noppi nag wàññeekuwaat nag diine ji seen bopp wàññeekuwaat wane seenu ñàkk ànd ak seenu ñàkk déggoo ndax buñ demee ba tëj jàkka yi te bi ñuy tëj jàkka yi ñoom julli ñoo ko waxal seen bopp gouvernement bi de luñ ko yab yab mus ta wax ni tëj leen jàkka yi julli yi ñoo daje woon ñoom ne dañuy tëj seen i jàkka bi gouvernement bi toogee bañ bañ waxaan dañoo bëgg ubbi jàkka yi bañ ne dañuy nañ ubbi jàkka yi jullit yi wàññeeku ne duñ ubbi duñ ubbi seen i jàkka loolu kenn mënu ko fi kenn mënu ko firi kenn mënu ko firi duñ tëj ñu tëj ñu ubbi ñu ne duñ duñ tijji loolu kenn mënu ko firi ma bëggoon kilifay diine ñu yëg ne moomuñ nit ñi juruñu leen jënduñ leen jàppuñ leen ak njaam dañ leen a topp ngir yàlla ak yonent bi ak alxuraan kon am na loo xam ne buñ ko dee def doomu aadama yi dañuy dem ba mu jàgg nag lañ jàppoon ci ñoom muy set wàññi ko par ndànk wàññi ko par ndànk ba jeex te bu jeexee lislaam jeex nañ dimbale jullit yi lii ñuy def nii kenn du dof ñëpp a xam ba xàmmee lu ci waay def jullit yi xam nañ li ngay def lan la lu ci waay def xam nañ li ngay def lan la nañ dimbali jullit sa bàyyi lii ñuy def bu mbir xewee kee woote fee kee ñoddi fee kee xëcc fee te jubluwoo ci dara lu may partage nit ñi ngir diwisi leen ngir yilif leen donc kenn ku nekk di xëcc jëme sa wàll noonu du nuy dof suñ fekkee ne daal liñ leen fi tegee mat nañ ko nañ ñu dimbale jéem a ànd nekk benn parce que lii xew nii lii xew nii li ci li ci am bu fekkee ne bàyyiwuñ ci xel dañu mujj dem ba mu jàgg néew doole ba kilifa diine gu yëkkatee sa kàddu kenn du la wuyu lii kat sëñ bi dara rafetul te teguwut fenn nag ndax nag bu fekkee ne li ñuy wax wér na ñoom jullit yi ñoom kilifa yi te ñun ñoom lañuy déglu lu tee ñoom ñu mën a daje su fekkee dañoo war a daje ba duñ tijji jàkka yi waaye ñoom ñu daje wax ko su fekkee dañuy tëj jàkka yi ñoom ñu daje wax ko waaye nun nu toog leen déglu ñu ŋaayoo ko xëccoo kenn ku nekk di wane daraja kenn ku nekk di wane maqaama kenn ku nekk di wane sab tolluwaay te tolluwaay benn amul ci lu may tolluwaay bi la yàlla tollal tey tolluwaay bi la yàlla tollal yaa ngi koy xamee ci nit ñi topp sa gannaaw lislaam lañ leen sàmmloo lislaam lañ leen aarloo wutloowuñ kenn ay mbooloo ki taalibe ak i parparloo te xam ngeen ne lii xew nii ay parparloo ngi fi ay ay ay ay yoo xam ne ñëpp a xam te kenn du dof kon nañ dimbali nit ñi nit ñi diñ war a def def nañ ko de kenn ku nekk nga gëm yaa ngi ko jëm ñooñu ñu gëm nag nañ daje waxtaan bi tegu ci yoon te bàyyi yi ñuy def lim leen jural kat gis ngeen ko mooy lim leen jural mooy bu gouvernement di jël ay décision bi leen ci boole. parce que dara warulu ko nag lu may nit ki yaa ñàkk sa bopp fayda waaye koo xam ne ki quatre-vingt-quinze pour cent yaa ko moom cim réew gouvernement bi amu fi dara say nit lañ séddoo ba falu ba bu ñu ba te bu ñuy jël ay décision duñ la ci boole xam nga ne tegoo taxawoo fa nga war a taxaw. kon nañ dellu si waat jàppale julli yi dimbale leen te bàyyi yi ñuy def daara yi maa ngi woo gouvernement bi Macky Sall de maam Thierno Darou Mana Darou Mana ñoom Thiaw Balla waxoon na la ne Macky Sall sama xarit nga waaye looy def bul ci boole daara yi gis nga daara yi moom saa boo ko laalee rek àdduna tukki yàlla du ko xaare kenn. te yoon wii ma gis ñu aw jël ay daara di ko jël seeni borom naan dañ koy delloo seeni waajur waaye koo xam ne ci ba muy jur doom fekke woo ko ba mu ko yar fekke woo ko ba mu ko yóbbu ci daara ji fekke woo ko fekkoo ko ca daara ji ak dara nga toog ba yàgg nga ne da nga koy jël da nga koy delloo waajuram waajur war naa am fayda ju tolli boo ko indee mu ne ku la ko indiloo sama doom ji nga indi ku la ko indiloo ñu naan dañ leen di yóbbu ci ay santas dañ leen di def waaye bu fekkee ne la rek kay yor daara ji di jàngal yow nga am loo mën a yore gone gi ci santar la nga yore gone gi ci santar te nga koo jox borom daara ji mu yore ko daara ji bu fekkee li ngay wax dëgg la yow kay coono yi nga nar a di ko yor kii moom yor na leen ba noppi yor na kër yor na lépp yow da koo nar a yor santar ba naan santar gindi santar xaw ma nan bala ngaa def loolu kay waaye waaye xaalis bi ko nar a yore nga dem jox ko daara yi ne ko ne ko téel gone yi gis nga caaxaan baaxut te bëgg naa ngeen teey ci ndax gis nga daara yii moog julli yi ñu àndandoo seen ngëm-ngëm la de ku ko laal laal leen bis lay ñëw boo xam ne bis bu tàng jër lay doon sëñ daara yi nag ñiy jël seen daara di ko yóbbu ñoo ñàkk bopp koo xam ne kii ba ngay sos sa daara fekkiwu ko lam yorokas néew di ko séddale nit ñi di ko séddale élèves yi jàng yow yow yow dongam daara yi bokkoo ci mu fekk la fa naan damay jël sa daara bu boobaa ne yóbbaale sa bakkan loolu duy wax kat delluwaat leen ci gannaaw sëñ Abdou Aziz dégg naa li mu wax dégg nañ ko bu baax loolu wax rek ay dëgg ànd nañ ci moom kilifa yëpp yëg nañ ko bi ci toppaat mooy gouvernement bi coronavirus bii de war ngeen ci am lu ngeen ci jànge li ngeen ci jànge mooy xam ngeen nit ñi gëmuñ leen wóoluwuñ leen jàngoro joo xam ne yaa ngi koy gis man caa teg sa loxo di wax nit nit ki ne ko jàngare jàngi ni mu lànk ne du jàngoro ji xam nga ne yow la gëmut yow la gëmut li tax nag bu ngeen leen waxee du ko duñ ko gëm nag loolu moo mat a seetaat da ngeen leen tàmm ma wax te li ngeen di wax doonu dëgg moo tax bi ngeen leen waxee ne jàngoro jaa ngi nii ñu ne du dëgg la waaja waxoon rek laay wax ba duggee ci oto oto bi accidenté ñu ñu bari faatu ñuy génn néew yi di teg di génn ba yàgg ñu génn benn waaye mu ne faatu wu ma de waaye ñu ne ko yii faatu na de ab politicien la day wax rek faatu na mu ne faatu ma ñu ne ko faatu na de ab politicien day politique rek yóbbu leen ci ñu faatu suul ko loolu moo dal politiciens yii maanaam nit ñi dañ leen a mënut a wóolu nit ñi mënu leen a gëm loolu moo tax nag loolu mat naa xoolaat nii kenn du ko yore ak population di leen wax lu dëgg ba ba boo leen waxee dëgg ñu weddi ko loolu dara jarul te loolu moo am nag ndax fi ne coolaag ne cobbay te nit ñi mënuñoo fexe ba gëm wax bi te day Tuubaa gii day ba leen ko Sëñ Muntaxa waxee génn xaalisam def ci ñëpp ko daal di gëm ci saas waaye bu leen ko gouvernement bi doon wax ba déwén duñ ko faale loolu nag bu dalee ab gouvernement war naa xoolaat boppam xam ni moom mii yoon yu mu jaar du yoon wi te noonu kenn du ñu yaree ab population bi ci toppaat mooy kóor bii nga xam ne moom lañ def gendarme yi ak ak police yi nga xam ne ñoom lañ ko dénk xeeti reewande yi ñu ci ware ak itam nag xeetu xaw ma kañaan lañ koy tuddee xaw ma mbañeel lañ koy tuddee xaw ma topp ji ñu ñuy dóor ak a gaañu leen neex def te mbir mi du du xeex bataille sanitaire la danga war a laaj nit ki wan ko yoon dimbale ko jàppale ko waaye nit ki nga doon aar nga far wàññeeku di ko gaañ ba lu lu raw lu raw li ko doon aare loolu laa gis man. ñi nga xam ne ñoom ngeen yóbbu ci terrain bi yar leen leen te jàngal leen te leen réew mi toll am réew ku ca nekk da ngay xam réalité réew ma waaye fekk imaam ci ci jàkkaam nga di ko di ko dóor ba di ko gaañ loolu ab jullit du ko def waxuma la ab jullit mais nit ku nit sax du ko def. yow dañ lay sàmmloo yaa ngi romb nit ki ci buntu këram ne ko duggal ci biir kër gi rek bu fekkee jàmm nga bëgg waaye jàpp dóor dugg ci biir kër jàpp ay nit dem dóor gaañ loolu dara jaru ko waxuma la sax ñu di ci boole ay wax di wax léeg-léeg ba ji ba ba dépassé nit ñi ba yàgg seeni kilifa yooyu gouvernement na ci bàyyi xel yu tuuti la yoo xam ne ñu ngi koy xeeb te day gën di màgg rek te gis nga nit ki su fekkee ne danga nga koo da koo yare noonu mu ne cell bis bu fi fi fippoo rek am force de su ko yore ab population population da ngay wax ak ñoom yërëm leen dimbal leen te xam ne bañ lay fal looloo taxoon kon nañ xoolaat ci wàll woowu bi ci des mooy da waxoon de daaw de atum social la waaye ren jii nag moo war a doon atom social ndax ceeb bi ñuy séddale dangay gis ku dikk ne la nañ seet ñi ko yayoo man de xawma beneen koñ waaye koñ bii ma dëkk rek ñépp a ko yayoo koñ bii ma dëkk soo bëggoo natt naan kan ak kan moo fi yeyoo ndimbal li doo bàyyi kenn ñépp ngay bind kon suñ bëggee dimbali nit ñi bu amut ko ko yeyoo ñépp a ko yeyoo nañ leen jox dimbal suñ leen mënta jox ndimbal mënta daj xaalis biñ jëlee muy junni milliards yooyu ñu teg ko ci piri bi wàcce ko ba saagub ceeb bi bi junni kon yépp dañ ci mën a jot su fekkoon dañoo bëgg dimbali nit ñi dañuy wàññ ceeb bi wàññi suukar si wàññi déwlin bi benn bu nekk ñu wàññi ko ba ba ki néew doole man caa joti su boobaa danañ ci jot kon nañ dimbali nit ñi nit ñi sonn nañ de boo demee ci àll bii de la fa nekk kenn mënu la ko wax kon ren jii atam social la bi ci toppaat nag mooy ah, nawet baa ngi ñëw nit koo xam ne kii amoo loo nooroo xam nga doo am loo nawetoo kon gouvernement bi na bàyyi xel ne réew mu réew mu sonn mu kiif mu feebar moo fi nekk ma bëgg mu jàppale leen jàppale gi nag bu mu ko jaarale ci politiciens yi la ma la waxoon na ko jaare ci nit ñu wóor ñoo xam ne yi jàppale dañ jot ndax li ëpp ci li ñu séddale dégg lañ ci am ndax boobee ba léegi kenn du taaw bu fii ne ma la ñuy séddale gouvernement bi jot naa ci kon nañ dimbali nit ñu jàppale leen baykat yi nañ leen dimbali amuñ jiw amuñu dund amuñu matériel bu ñu bàyyee la muy jur nag mooy suñ ngeen leen bàyyee noonu ñoom ñëpp dañuy bàyyi foofu yi àll ba ñëw fekk si leen foofu ci tax yi buuxanteeg yéen ci li ngeen li ngeen yor ñu jéem caa am seen gëm kattan tey na dimbali nit ñi wutal leen ab biir boo xam ne bi daañ mën ñibbi seen kër yi ndax na nga xam ne kat fii de am na borom kër yu yalwaan yoo xam ne bii seen alal la nga Dakar dañoo mënta dem am na ñoo xam ne ña nga Dakar bëgg ñibbi bay mënuñoo dem gouvernement bi na jël na na na na na def xelam ci xam ne nit ñi dañoo sonn amaa ñi ci des nag diggante ministère yaag député yaag attekat yaag ñaaj ñoom ñoom ñëpp ñoom ñëpp rek xam nañ ne nekkuluñ fi kenn seen bopp lañ fi nekkal nit ñaa ngi xiif ba sonn amuñ amuñu dara amuñ fuñ jëm amuñ ku leen jàppale damaa defoon ne kenn ku nekk day wax ne man de sama salaire ñaari weer joxe naa ko ginnaaw nit ki nee nga ko toogal ci sa sa kër te amulum lekk yow nga ne ko toogal ba nag bu weer dee nga fay sa sol dëkk sa poos xam nga ne yaa ko tey ni mu fa toog bu fa toogee lee mu jóge fa su fekkoon ne daal bëgg nañoo dimbale doomu aadama yi dañuy maye seen sal seen salaire ñaari weer ñu dajale ko jox ko doomu aadama yi dimbali ko ko ah, ah assemblée bi nag moom. ñooñu moom jëru sax tudd nag moom ñooñu sax maana ku leen di tudd sax daanaka moom jërul wax moom assemblée moom ñooñu duñ dara boobaak léegi ndax dégg ngeen leen fen te nee ñu yéen lañ fa nekkal ndax dégg ngeen kenn ci ñoom tàmbale ci Moussa Niass ba ca suuf seen caisse noire googu tey ñu tibb ci génne ko dimbale ko doomu aadama yi lu may ñu toog di seetaan déggoo ci kenn kon boo liggéey gi si bala ngeen a farati député na ngeen xool kii kan la naa ñoo ngi ñaan nag kilifay diine yi ñu àndandoowaat nekk benn dajaloowaat bu ëllëgee képp kuy ñaan laaj réew mi bu fi benn sëriñ toog naan duma politique seetal ki nga xam ne moo gën ci nit ñi nga wax nit ñi wateel ko bu buñ ko watalee ba ëllëgee si mu amee mu amee ngërëmal mu am mu amee yërmaani nit ñi di leen dimbale te yàlla tax loolu rek moo ci kàddu yi ñu doon wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf bil Mustafa nawaytuma yujaddidu sunnatul xaraayi ahmadu